hello YouTube hello YouTube na ngeen def sorry su ma xoolee fii man lay xool su ma xoolee fii yéen lay xool naka seen samedi gi tey maa defu leen dara alhamdulilah man nag tey dafa am ku ma war a létt koo xam ne léegi tey mu dikk so waaye ma ne ma ñëw tey ñu waxtaan neen waxtaan balaa kooku noonu ma di ko létt ay noo xam naa di ngay wax ne Ami Jojo yoo saa yu nekk rek nga indi YouTube vidéo wala Facebook vidéo let's just you enjoy video yi right now su fekkee ñu ngi koy enjoy hopefully because life is too short xamuy kañ laa koy bàyyi wala kañ laa koy wàññi wala kañ ngeen may gëj a gis ok dama am beneen waxtaan bu am solo boo xam ne dama ko indi bu ñu waxtaanee ko while may def suma um, makeup bi and then ñu waxtaan yëfi haduna and just um, bu ma defoon si hàngale uh, démb di wax lu tax ñu war a sëy dinaa ko wax si xolof tey parce que am na sama beneen follow mu bind yow ma laajte la noonu Fatou Italie sama benn follow bu sénégalais bu ma bëgg la waaye déggu anglais so def dee bëgg léegi lu ma def si anglais ma def ko si xolof and just you know so lu ma di wax dinaa ko wax tey waaye dinaa ko wax si beneen fànn waaye dinaa ko wax tey and then just waxaale yeneen other stuff so yeah welcome and relax leen and you enjoy video bi so yeah naka seen um, samedi gi si lu ngeen ne like I say man moom tey am ku war a létt so yeah benn jigéeni tubaab mooy ñëw later on pour ma tegal ko so school holiday bi fii commencé na xale yi tëj nañ school um, <clears throat> for the year so this year nii xale yi tëj nañ school and then yeah gars yi dañoo nekk si kër gi di enjoy ak man dinaa leen teg place yi dinaa try ma vidéo su ma leen tegee si su ma leen si place yi dinaa leen yóbbu si place yi um, like Edinburgh Christmas market or places ok dinaa seet hopefully weather bi dinañu may jàmm ba pare um, dinaa try ma jël nataal su ma yóbboo xale yi ngeen gis lu ñuy def ok soo tey dama bëgg ñu wax yi fii um, àdduna in general ok ak suñ society bi in general suñ society bi dafa naqari léegi because kenn du wax dara you know loo wax ñu sikk la loo wax ñu xiit la soo nit ñëpp a ngi dëkk si pour ten you te issue yoo xam ne xam na issue yoo xam ne xam na problème yoo xam ne ñu ngi si ñun hmm? problème yi dafa rëy daf dee daf ñu dee faat sax sadly problème yi dafa rëy ba mun nañoo rey waaye kenn du ko wax ku wax ñu sikk la you know it's mooy ñun ñu ñu jàng lu ma a waxtaan mooy ñu jàng nu ñuy dégloo i te bañ a mer parce que lu nit wax rek ñu ne oh kii dafa evil de kii dafa bon moo tax waxul lii de moo tax mu wax la le de yu know mbala ñu jël kooku noon di ko daw te fekk kooku noonu mun naa nekk sa xarit mun naa nekk sa mbokk wala mun naa nekk yenn yi sa jëkkër sa wala sa jabar sa mhm. te fekk kooku noonu soo ko dégloo ngeen wax ngeen déglu xante ngeen wax ngeen déglu xante ngeen wax ngeen déglu xante ah su yàggee di nga xam ne ah ndeke kii li ma foogoon ne loolu la du lool su yàggee yow sax di jàng si moom moom tamit dina jàng si yow parce que àdduna de réalité is ñun ñëpp ñoo dee ñoo dee jàng ñoo dee mun a jàng si each other ñun ñëpp ñoo dee mun a jàng man dama mun a jàng si yow yow nga mun a jàng si man waaye ñun dañ dee dañ dee gaaw a daw rek nit du du li nit ku ñëw rek de àdduna si yëpp la léegi dañ dee gaaw a daw nit koo xam ne mun war nañoo mun a jàng si moom wala war nañoo mun a dégg lu muy wax mu jëriñ ñu ñun tam lu ñuy wax dana ko jëriñ waaye dañ ko dee gaaw a daw daw ko beddi ko foog ne buggut ma moo tax wala nangam nangam te like I said nit mun naa nekk sa xarit mun naa nekk sa jëkkër mun naa nekk sa jabar mun naa nekk sa nit ku ne so um, waa mun nga koo dem de ama ana carte bi Fatou mu ngi ko xamee so um, damay def simple makeup nii rek ok soo buggee de simple makeup dangay try bul indi makeup bi ba si li nii nii because su ñëwee ba fii proper daf dee look a bit xanaa nga xam noo koy contour or whatever man xam nga mënuma make up so dama dee def simple kiiw rek but mënuma make up te dama dee bëgg sama make up bu mu nekk too much so mun naa just suma little make up yi but mënuma like professional whatever you guys call it you know what was so fu jaar rek ñu xam ne ñun fu jaar ñu déglu dégluwante ba pare lu ma jàng tamit si àdduna ah mooy ne ñun problème yuñ dee yuñ dee dund ba tax ñuy naqadi deret for exemple te yëguñ ko ñun ñu si bëri ah. yëguñ ne sax yéen ñu si bëri xam xam na ñun ñoo xam ne ñu ngi naqadi deret lay kay seet si suma yeneen vidéo yi dama ko dee wax xam na ñun ñoo sorry dama am phone call so um, noonu la so what I'm gonna say is that ah caméra bi laa jéem a fix de waay Come on. mu leer torop you know caméra daf ma dee def ma leer torop it's either gonna leer torop or little bit of lëndëm but si man it's not a little bit of lëndëm than leer torop what was I'm gonna say uh, <clears throat> ñun dañ dee foog ne par exemple nit xam nga nit ku si nekk soo dund soo dund dara loo xam ne lii moo tax nga naqadi deret wala lii moo lay metti ah ba tax nga naqadi deret yow danga ko dee xam nit foog naa kenn du dund loo xam ne loolu moo la tax a naqadi deret te yow waxoo ko xamoo ko kenn dofeewut noonu da ko dee xam léegi def na si yow nag pour nga xam nit koo ba waxtaan kook moom xëj na ko ko xelal la mbala jos nit ki soo waxee lu lay métti rek daf dee tax mu wa métti bi wàññeeku. jos pour wax ko rek waaye soo ko dencee te mosoo ko war a dee tax mu gën a métti te ñu nit ku ñuy bëri du ñu nangoo li ñu métti duñ koy ñemee wax dañuy fone suñ ko waxee ni kooku daf koy wax keneen wala kooku daf gisee leneen moo tax ba ñun ñu si bëri ñu xamee suñ naqar yi mu di ñu bund xataal ba abada ñun ñu si bëri parce que duñ koy ñemee wax waaye da ngay gis ne nit ki kenn ku ne soo xamee la naqari par exemple ba tax nga naqari deret wala ba tax ngay def yenn yi yow da nga ko dee xam ne nangam bi moo naqari yee waaye dang dee foog ne yow ñeneen ñi ngay waxat for exemple wala ñeneen ñi ngay dugalantee for exemple ñu ba ñooñ noonu xam lu leen naqadi dang dee foog ne ba ñooñ noonu tamit naqadi dara ni yow for exemple ba tax mënu leen a déggoo si wax wala dara dang dee foog ne ñooñ noonu xamuñ naqat parce que xëj na ñooñ noonu waxuñ la dara yow waxoo leen dara for exemple ñoom tam waxuñ la dara wala xëj na yow wax nga leen waaye ñoom waxuñ la su ko defee yow dangay ngay fàtte ne yéen ñëpp a ne si métit wi da foog ne doo xam ne yéen ñëpp si métit bi parce que ñoom waxuñ la ne ñu ngi si métit wala dund nañ métit wala ñu ngi am lu leen naqadi parce que ñu ngi si bëri lay kase dañ dee nëbb wala yéen yi da nga xam ne sax kii mu ngi dund naqad ku nekk si situation bu bon ku ne moo koy xam waaye dang dee fàttee nga foog ne yow sa bos sa situation bi nga ne xëj na moo gën a métti wala yow kooku moom na la understand waaye yow doo ko understand su ko defee nag yéen ñaar ñëpp nag du ngeen understandante yéen ñaar ñëpp ngeen di yuuxuwante mun ngaa gis li fi nii ba pare mun ngaa nekk di di di yéen ñaar ñëpp ngeen di ñàkk understandante yéen ñaar ñëpp ngeen di werante yéen ñaar ñëpp ngeen di defante yéen ñaar ñëpp ngeen di xuloo because yéen ñaar ñëpp kenn ku nekk mu ngee dund métit bi nga xam ne moo ko tax a naqadi dere for exemple wala métit bi nga xam ne moo ko tax a ragal wala métit bi nga xam ne moo tax mu muy def lu muy def waaye parce que yéen ñaar yëpp déggoowu leen yéen ñaar yëpp waxante wax waxu leen yéen ñaar yëpp xamantewu leen ne ñun ñaar ñëpp ñoo ne si di seen situation bi soo dañ war a jàppante if you know what parce que kenn ki xëj na mu ngi nëbbu wala yéen ñaar ñëpp a ngi nëbbu parce que the reality is nit ku naqadi deret koo gis ku ne fa xam lum dund loo xam ne loolu moo tax mu naqadi deret that's the reality koo gis mu naqadi deret naqadee waxal lu ne rek mu mer di nga ñi nga ñi lu ne rek mu sikkal lu ne rek mu lifin xamal ne dafa xam lum dund ba tax mu ragal ñemeetut a xóolu nit wala parce que ñun doomu aadama njaay su fekkee dañ dund dara loo xam ne nii baaxut lay kay seet loo xam ne neexut ñu ah dafay tax suñu yaram mi daf ñu dee suñu yaram mi daf ñu dee garder suñu xel mi ak suñu yaram mi daf ñu dee protéger léegi luñ gisati muy ñëw rek da ngay gis loo gisati muy ñëw rek dañuy séentu ne lii lu bon la lu bon li ma daloon nii mu ngi ñëwaat lii tam dana nekk lu bon de su ma xeboo ma moytu soo suñu yaram mi daf dee taxaw mel ni soldaar nag di xeex lu bon. di pare 24 hours mu ngi wut lu bon lum xeex moo tax nga gis nit ñoo xam ne buñ ci yàggee fa ñuy dem ba duñ mën a tee wax oo xalaat xalaat bu positif fuñ toll rek ñu ngi xalaat négatif parce que seen xel xel mi fu mu toll rek mu ngi xalaat mu ngi xalaat daf leen war a protéger parce que su leen protéger tout leneen lu bon lu leen daloon bu yàgg noonu loolu mu ngi ñëwaat pour dalaat leen de. noonu la suñu yaram bindoo xaw na ndax understanding understand lu may wax nii noonu lay yàlla bindee suñ dundee lu bon suñ dundee lu métti si àdduna ida nit lay kase ida moo ñu jàmbu gune yaa nga nga xam gune yaa bu métti or anything léegi yow saawoo gisee dara loo xam ne nii aussi ko um, dafa metti rek daf dafay ñëw si yow rek mu ngi lay signal te mu ngi lay signal di la wan ne lii dafay métti rek danga dee tiit nga xalaat ni nga jaaroon nga foog loolu mooy ñëwaat loolu moo dee indi naqari deret bi léegi naqari deret bi nag su fekkee ne par exemple sa sa kilifa yi ñoo ko dund wala sa kilifa yi seen kilifa moo ko dund ah léegi ñoom dañu nekk naqari deret si gune googu noonu yar gune googu noonu su magee loolu lay continuer naqari deret boobu noonu su fekkee ne nag naqari bi ñu nekkee woon di def si gune gi daf si boole woon ñu di ko dóor torop di ko toroxal torop gune goog noonu naqadi deret tam moom tamit su su xamee doom def ko ko doom jooju tam su xamee doom def ko ko mu continuer rek moo tax ñu ni ko ñu si bari ñu mel nii waaye léegi instead of like I said xaduna bi yëpp la xaduna bi yëpp a nekk di dawante léegi ak ñàkk a xoolu xadihante gi waaye ñu nikk ñu soo gisee suñ bos woos again because ñun duñ dee wax suñ problème yu am fayday dëgg si ñàkk fayday la ñuy ne man nu ma ko gisee mooy instead of ñuy dawante hmm, di foog ne for exemple di sàngam su ma ko randuwut su ma xamalee dara fay daw su ma xamalee dara fay nekk ku bon dëgg la xam nañu bëri ñoo xam ne buñ la xamalee dara hmm. bañ koy wax ba pare bañ lay yàq that's just the reality parce que am na si ñun ñu bëri ñoo xam ne dañ jaar si lu may wax nii te dañ war a toog xam ne dañ war a faju faj problème bi leen dal waaye xamuñ ko sax nit ki soo toogul nga xam ne suma xel mi wala yi ma dund nii wala suma xel mi dafa niit ndimbal da pour nu may gisee àdduna bi wala nu may gisee nit ñi wala nu may defee nit ñi ah en soo toogul nga xam ko nooy fajee nooy nooy fajoo te ñu ngi si bëri du ñuy xalaat sax ne da fañ fañ war a fay suñu xel mi like I dama ko dee wax sama vidéo yi du jeetu xaaj um, waaye léegi da ngay gis yow da ngay foog kooku noonu yow yow kooku dafa nit ndimbal fekk dëgg la kooku mën naa xam dafa muy xalaatee wala nu muy gisee àdduna wala nu muy defee nit ñi wala nu muy defee nit ñi waaye fekk yow sa tamit xëy na yaa ngi nit ndimbal te yëgoo ko que ñun soo ko seetloo ku ci fenal nit ku ne wala nga def nit lu bon ku ne kan koy def tam daf ko dee def keneen wala def na ko keneen yu si bëri wala dana ko def keneen parce que feebar bi ñun ñu si bëri ñu ñun feebar bi may wax nii muy feebar yi suñ culture bi ñu ñu si bëri la daal te ñun ñu si bëri ñoo ko màggee te ñun ñu si bëri ñoo ko miin ba gisee wuñ ko lu bon gi nga nit dara looy def wala loo dund lu bon bon bon bon bon bon soo ko miinee te yow ñi la wër yëpp wanuñ la ne lii baaxul yow doo dee xam ne loo baaxul doo ko dee lu bon. nit ku ne li nga dund su yàggee danga koy miin lu mu bon bon doo ko giseeti lu bon te ñun xam na si yu bëri suñ culture bi yoo xam ne dañuy foog ne suñ ko waxee rek mooy ne dañ yàpp suñ culture bi wala suñ ko waxee mooy ne ñun fañ sañ wala nangam nangam wala fa ñuy xas suñ culture bi déedéet kenn du xas sa culture wel ku wet ku ne doo xas sa culture culture bi sa nga jógee di boo ko xasee sa bopp ngay xas bot because culture bi fañ ko bugg fu mu jaar rek ñu wax yu xam faay dañuy xam ne baaxut si soo léegi dangay gis ne yow nit ki dangay foog ne uh, yow ni ki ngay jëfat moom kenn yow rek yaa xam métit wala yow rek yaa naqadi deret wala yow rek yaa nangam wala yow rek yaa xam métit soo moom daf la war a understand wala moom daf la war a def nangam wala moom lii soo ko seetloo ñun li ñuy sikkaate yëpp lu nekk rek ñu ne diw nii diw nale te duñ sikk suñ bopp loo fa ne moo tax di ko def parce que dañ dee foog ne ñun fañ mat nit ñi ñoo matut wala nit ñi ñoo bon ñun fañ baax nit kenn baaxut kenn nekkul hundred percent baax nit nit rek la dafa des nag si yan mistake ngay def xam ne mistake yoo xam ne mistake yi la waaye ne yenn mistake yu yoo xam ne moom soo ko bindoo xëy war ngaa toog nga waxtaan sa bopp nga wecceeku that's the reality waaye pour ne ngay xam nit ku mat koo xam du def benn mistake good luck good luck ngay wut nit kooku like I said wax naa ko ba sonn sama vidéo yi doo ko mën a gis doo ko mën a xam ndax yow sa bopp sax meloo noonu yow sa bopp sax boo seetloo sa bopp danga xam ne yow sa bopp meloo noonu léegi noo xam ne yow meloo ko nooy xamee nit ko ko mel dëgg la xam na nit ñoo xam ne dañ dee gore si si dañ dee try you know su ñuy def bon wala ñuy def mistake it du ñuy def lu bëri suñ ko defee dañ dee try ñu weccee ko na nit ñoo xam ne duñ try ba pare dañuy foog ne ndax nit ñi ñoo bon instead mbala yéen yi dañuy xam ne sax ñoom seen bopp dëgg-dëgg dañ war a wecci waaye duñ wecci su da ngay su boobaa ñoom dañuy dund si si si si àdduna bu métti ba pare ji dundal nit ñi àdduna bu métti parce que dañuy wax ne ñoom nit ñi la ñuy sikk nit ñi boo dee ñoom rek ngay sikk doo sikk sa bopp te yow sa bopp boo seetee sa bopp xam ne sa bopp nga gën a war a sikk dan anybody ngay sonn parce que nit ñi ngay sikk par exemple nga foog ne yow ngaa dund lu métti sa àdduna bi yëpp danga nga dund lu métti soo léegi nit ñi ñoo la koy def nangam nangam te nit ñooñu tamit xëy na ñu ngi dund lu métti ni yow suñ la ko waxee suñ la ko waxul parce que ñu ñu si mën a génn wax bëriwul ñu ngi si mën a génn wax luñ dund wala nangam bëriwul parce que soo waxee dañ lay sikk yee wala ñu di la yee soo moo tax ñu bëri dañ dee noppi rek su ko defee yow nga foog kooku noonu xëy na dundu dara lu métti yow yaa dund lu métti. soo léegi kooku daf la war a understand wala yow nangam fekk du soo xaw ma ne understand ngeen lu may wax fu may waxee nii tey because su may def makeup tey wax moom wuu ak day ko bo jaar rek ñu xam ne <clears throat> point ma bëgg a make mooy fu mu jaaree ñu xam ne nit ñi ñuy diilal nit ñi ñuy jëfalanteel ñun métit bu ñuy dund wala metit bu ñu dundoo pare <coughs> nit ñooñ tamit moom la ñuy dund mbala moom lañ dund ba pare you see nit ñooñ moom la ñuy dund wala moom lañ dund ba pare <coughs> Adi dama dimbale ngir yàlla nga jëma suma ay laas yi ma teg suma kaw suma boppi laal suma boori laal si kaw bi foofu noonu mm. so da gis ne nit ñi ñun coono buñ dund ba tax ñu naqari deret ñun ñu si bari noonu lañ dund wala loolu la ñuy dund dañ ne bañ la ko waxul rek xam na ñoo xam nëbb like I said nëbb so fu mu jaar rek ñu ondas du bi bu nekk bu nekk livin bi si boori lampe bi maa ngi ko yuusoon ba so fu mu jaar rek ñu xam ne nit ñu si bëri buñ la waxee buñ la waxut xam na luñ dund ñoom it lu leen métital kenn ku ne mu si àdduna bii di ko dund different ni kenn ku ne mu ngi koy dund sa métiti bopp ñuy dund si àdduna bi te xamuñ métit bëriwul kenn ku ne yaa koy dund sa métiti bopp waaye fa des ñoo xam nit ñi seen yaram yi dañ dee suñu <coughs> yaram yi nu muy jëlee métit dafa wuute this is the word I'm looking for xam na ni ñoo xam ne lay I say bu leen dara dalee nuñ koy mun a xandulee ak nu ko kële di mën a xandulee du benn doo sin min ne man maa la gën wala yaam a gën yaram yee wuute rek sibbutu sax bu ko nit ñi defee xam ne ñoo xam ne seen sibbutu bi na muy méttee ak keneen ki posan muy méttee du benn yaram yi duñ benn waaye nag sibbutu gi moom ñun ñu bëree ko def fa doone rek niñ koy niñ koy niñ koy fajee wala niñ koy xandulee moo moo wuute ni ko suñu yaram yu xandulee waaye nit ku ñëw ko si butuwut bëriwut ñu suñ culture bi moom ku ci jaar te si butuwoo bëriwut soo léegi fu jaar ñu xam ne di dawantee ka di sikkante aka di bañante du ñu dimbale de aka di bañ di dawa wax lu suñ suñ problème bi loolu it du ñu dimbale suñ problème bi fu mu jaar ñu jaar si digg bi wax ko su benn nit dégloo sax at least yaa ngi koy wax dëgg bi yaa ngi koy wax li problème bi waaye lëm-lëmal gi di ñu faaj ñu suñ problème bi lay ka seen main problème mooy dañuy dawante ñun ñëpp xam nañ loolu te dawante gi du ñu faj de ah suñu doon faj tey foog nga ne Afrique fajiwul ñun Afrique bañ dalee dawante ba tey fekkoon ne dawante gi mooy suñ solution lu ko noonu foog naa nit ku ñuul yi seen xamatuñ benn problème de ñu nit ku dawante lim ñu yàqal ba de tawante beddihante xeebante ba ñun day war a eh, jàng di sacrifice for luñ bugg you know ki soo buggee dara fu mu jaar nga sacrifice waaye ñun dañ dee teel a give up torop dalee ko si man def naa ko in the past <clears throat> teel a give up du ñu yóbbu fen fu mu jaar nga sacrifice si stuff yoo bugg you know sacrifice muy sa doom la woo muy sa jabar la woo muy sa jànq la woo hopefully not jànq bot muy sa xarit la woo yëpp nga sacrifice ba pare xarit dafa am solo xarit bu baax dafa am solo pour ñu xam ko xarit boo xam ne daf la fay nekkal nga nekkal ko fa nga sacrifice sante ak moom dafa am solo man de suma xarit bi gërëm naa ko sant naa ko su ma ko amutoon fii at yii danaa gën a sonn de ma xarit bi ma ko xamutoon fii xarit dinaa gën a sonn ñi nga dikki soo xamee xarit boo xam ne daf la fay nekkal dekku ne xarit bi dafa war a nekk koo xam ne du la mus a tooñ wala yow doo ko mus tooñ da ngeen di nekk comme ça ay malaaka déedéet nit ki sa doom yi sa dañ lay tooñ xanaa sa doom yi bëgguñ la xanaa bëggoo leen sa doom yi nga leen di tooñ nga fa ne doo leen di tooñ ku du tooñ doom xamut nu la doom yi di tooñee nga mer yow tam noonu nga leen di tooñee nit rek ngeen waaye ba tey yéen a leen yaa ngi leen bëgg sa jëkkër wala sa jabar di séem sa yaay wala sa baay di séem sa sista wala sa broda wala anything di séem soo sa xaritam dafa war a nekk di séem waaye ñun ñu si bëri dañ dee give up xarit quickly parce que mooy lu ma la wax rek ne ñun dañ dee foog ne àdduna bi yëpp a war mat waaye ñun waruñoo mat waaye ñeneen ñi ñëpp mat. ñun suñ matul sax baax na waaye na ñeneen ñi ñëpp mat te loolu du mën a dem ñun ñëpp nit rek lañ ñëpp nit lañ te nit kenn matul yow ni nga mën a def ba def yow warta def wax la warta wax nit ñi nit ñi diil ak yow nit ñi digalanteeg yow it noonu lañ war noonu la ñuy def ba def lu ñu warta def wax lu ñu like I said dafa des si lu nit ki def lan la ne xam na yenn yoo xam ne nit kaa koy def ba pare continuer di ko def ah? ba pare nekk di la ñaawal di si teg and stuff like this daf dee hard pour nga continuer ak nit ki jaar rek lay I said danga koy war a jox chance xëj na fuli xelam mi dana ñëwaat mu change ngeen continuer relationship bi parce que relationship boo xam ne nii xamut xamut misunderstanding xamut waaye nag lu si bon mooy misunderstanding bi ñëw ba pare ngeen bañ a on ngeen bañ a muufoon ngeen baña a baalalante muufoon ngeen ngeen ko si xol rek di defante you know di dogoo ak a def yëf lay kay seet dafa des si nit ki mu la def lan la parce que xam na yéen nii su la ko nit ki defee moom daf dee difficult yee bot ñun dañ dee foog ne is pour sa xarit mu def la lu ndaw rek nga dogoog moom mbala mu wax la lu ndaw rek nga dogoog moom muy sa xarit muy sa mbokk muy sa kune fa ñuy wax ne kooku noonu dafa war a nekk hundred percent nit ku mat sëkk koo xam ne du def benn mistake si suñ digganteek moom léegi ñu ñun nag ñun ñi nga xam ne nag ñun bañ juddoo ba tey ñu ngi def mistake suñ digganteek àddina si ak suñ digganteek nit ñi ñun is fine parce que ñun nit rek lañ kenn matul waaw waaye nag ñeneen ñi nga xam ne ñooñ ko ñooñ la ñuy diilal ñooñ ñooñ moom waruñoo def benn mistake ñun nag loolu lañ problème boobu lañ dee xam moo tax du ñu nangoo baxal nit su nit defee mistake duñ ko nangoo baxal duñ nangoo muufoon su nit defee mistake dafa des si mistake yi ban façon ngi mistake nga xam ak moom ak nit ki sa responsabilité bi ak moom lan la responsabilité boo xam ne par exemple mbokk la wala best friend responsabilité wala jëkkër ak jabar responsabilité wala nit ak doomam wala you know like close relative wala nit koo xam ne mu ngi la fa nekkal type responsabilité su ngeen xamee misunderstanding tamit da ngeen war a mun a after ngeen ngeen fix ko again like I said wax naa ko sama vidéo yi du jeex du xaaj sa bopp nga koy defal ak nit ki ak seen njaboot yëpp waaye ñun soo gisee ñu dee gaaw a daw soo jotee nit rek daw abandon ko doo ko baalati mukk doo doo waxateeg moom mukk doo seqateeg moom dara mukk it's because ñun dañ dee fone nit ñëpp a war a mat waaye ñun jaru ñuy mat ñun nit leen waaye nit ñi ñooñ ñooñ malaaka te nit kenn matut kuy wut nit ñoo xam ne ñëpp a mat doo leen mës a gis so don't even bother doo leen mës a gis also say bëgg naa wax si say bi like I said uh, video English bu defoon bëgg naa ko bëgg naa see wax tuuti lu tax ñu war a sëy because sëy léegi dafa naqari soo gisee ma def ko si English dama xam ne ñun ñun ñun xolof yi ba tey ñu ngi sëy ñun nit ku ñuul ñu ngi sëy ba tey dëgg ñu ngi koy wàññi ñun tamit ñu ngi koy daw waaye ba tey ñun ñu ngi sëy parce que dañ ko miin suñu deret la nekk waaye nit yi bitim réew yi wala xale yi juddoo bitim réew nii ñoo dee gën a daw si moo taxoon ma def ko si àngale bon mun naa wax lu ma waxoon rek at least ma wax li tuube duma a wax yëpp tax ñu war a sëy mooy sëy dafa baax torop waxuma sax mbiri yàlla gi de ku nekk xam na lu si yàlla wax duma fi ikkati mbiri yàlla gi de dama lay wax rek yeneen yi nga xam ne moo war a tax ba nga sëy yàlla or not su si mbiri yàlla bokkul sax gannaaw bu yàlla waxee ne ñu sëy ba pare yeneen yi yi war a tax nga sëy loolu laa lay wax parce que ñu ni si bëri yàlla gi rek duy tax ñu ñu def dara léegi nañ waxante dëgg rek I know subhanallah but that's the so let's just be real here nit ñi nga xam ne ni dañ war a sëy ñun ñi nga xam ne dañ war a sëy ngir ngir you know stuff yi nga xam ne moo war a tax ñu sëy loolu lay wax number one reason lu tax nga war a sëy mooy soo paat na boo xam ne jëkkër wala jabar boo xam ne nii ku baax la si yow dafay nekk sa xarit sa xarit lay nekk comme saa sa best friend wuu maa ngi yàq sama lii yëpp xam nga xef yi mënuma koo defar saa ma koo defar ngay réeba dee mënuma koo defar te duma bàyyi soo lay kay see soo xamee partenaire bu baax sa xarit la dee nekk sa best friend la dee nekk ba tey su fekkee ne nga amee sa best friend bi soxla nga sa best friend bi best friend dafa neex dara dàq ko xarit boo xam ne daf la bugg yàlla tax hmm? buggal la boppam nga buggal ko sa bopp dara dàq ko soo amee jëkkët lu jëkkët ja baax baax lu jëkkët ja neex neex sa digganteeg moom xarit ba palaasam dara du ko jël loolu xam naa ko xarit bu dëggu si yow nga dëggu si moom laa wax de palaasam kenn du ko mën a jël xariti pala palaasi xarit dafa wuuteeg palaasi jëkkër oo jabar oo whatever loolu xam naa ko waaye su fekkee xam nga na boo xam ne nii dafa bugganteeg yow ngeen buggantee ba pare ngeen understandante da ngeen di nekk best friend da ngeen di nekk ay xarit da ngeen di nekk ay xarit soo nekkee moo xarit nag lu nekk danga ko mën a wax ak moom soo xamee na boo xam ne sa xarit la ah, sa sëy bi ak moom dafay dafay dafay dafay xam caan pour mu mën a gudd pour mu mën a dox parce que du ngeen si xajal ay naa naaféq du ngeen si xajal ku ne te lu ngeen jotee lu ne ku si wax nag na xam la muy wax ndax ngeen di toog juboo xaat fu kenn newut ndax ay xarit ngeen kon sëy dafa neex su fekkee ne sëy nga ak nit ki nga war a sëyal laa wax de ñun ñu si sëy ak ki ñu war a sëyal nag moo bëriwut lii mooy problème bi xaduna bi yëpp nag parce que ñun nit ñun nit ku si sëy ak war a sëyal moo lii moo tax ñuy sonn parce que ñun dañuy sëy ngir ne suñ yaay moo ne ñu takk kii wala suñ baay moo ne ñu takk kële wala you know yenn yi nga tëdd ak nit ki sax seytaane man la rek nga doxee si takk ko wala nangam nangam waaye ñun ñu si sëy ngir ne kii lañ war a sëyal bëriwut ñun ñu si bëri dañuy sëy ak nit ngir nangam da da da you know if you know what moo tax ñun suñ sëy yi most of the time moo tax ñun ñu dee wax ne sëy neexut sëy muñ la soo gisee ñuy wax lool it's because ñun suñ sëy si dëggumoo moo bëriwut kenn xamul lu may def nii de dama mess up suma eyeshadow bi yëpp so moom laay jéem a fix nii waaye so ñun ñu si suñ sëy yi dëggu moo bëriwul parce que ñu ñu si sëy ku ñu war a sëyal ñoom moo bëriwul sëy koo war a sëyal yombut parce que yenn nit ki nga bugg xëj na kooka du xam yeneen yi nga bugg you know xëj na mun na xam xamul yaram bi nga bugg nit ki nga xam ne boo séyee ngoon doo sonn wala kooku nga war a séyal parce que soo séyee ngoon doo sonn you know and stuff like for example da day nekk koo xam ne xëj na yow nobuloo ko wala xëj na xamul yaram bu nga bugg wala xamul nangam bu nga bugg wala xamul nangam bu nga bugg wala bi nga bugg wala you know it could anything su ko defee nag nga dem mujjee si keneen koo xam ne kooku noonu du la bugg yërëm la comme kële wala kooku noonu du nekk nit ko nit ku yomb mbir ko koo xam ne daal boo sëyeeg moom doo sonn comme ni kële mel kooka du ko mel nga ne sa kooka di sonn ñun ñu si bëri lii moo tax suñ sëy duñ ko dee enjoy leneen lu tax du ñuy enjoy suñ sëy yi mooy bi ko dañ dee wax góor bi won ko ne ko man su sëy bi suma sëy bi duma ko tas noo ma ta wat yàlla moo tax ma toog fii di sëy so because ñu ngi woon góor gi lool moo tax góor gi daf dee nekk di def lu ko neex xam na ne ñun duñ def moo tax ñun jigéen ñi ku ñu si bëri suy sëy di sant njaay kenn waxul ne nekk nit ñi dañuy sëy te yàlla taxul déedéet yàlla mooy tax ngay sëy ku nekk xam na ko waaye su yàlla taxee ngay sëy tamit góor gi sa fam lu ko yàlla wax ne ko mu def ko mooy ne daf la war a bugg di la yërëm di la toppatoo di la dimbale def la di la dimbale su defatut loolu noonu yow kon ban yàlla nga fay toogal léegi sa yàlla bopp xanaa léegi ñun ñoo dee <clears throat> ñoo woon góor gi from the beginning ne ko sëy neexut suñ la muuree teg la wax lay kay seet wax naa ko sama yeneen vidéo sa waajur yi ñu la muuree teg la ne la say neexut de say neexut de di la wax suba ba ngoon lu say naqadee nga dem góor gi tamit xam na loolu noonu xam na ne yow yow da nga ñëw pour pour naqat xam na ne yow kay naqat moo la indi already soo lu tax du la jox naqat boobu noonu xam na ne yow naqat moo la indi already soo daf lay jox naqat boobu noonu su fekkee ku bon la xanaa mu nekk ko xam yërmande ku baax ba pare parce que ñun ñu ngi wax ne say say naq say muñ la say jaamu yàlla la moo tax sëy bi dee gën a métti lay kay seet waxuma ne sëy bi du jàmm yàlla de soo yéen ñi nga xam ne nag lu nit wax rek yéen ñi nga xam ne ngeen a mel noo xam ne lu nit wax rek ngeen sikk ko jël wax ba def ko négatif déglu leen bu baax lu may wax xam naa ne sëy jaamu yàlla la waaye because dañ dee ñëw si sëy bi di won nit ki ne ko di won jigéen ji jigéen ji lañ ko dee gën a won sax ne ko lii jaamu yàlla la lii jaamu yàlla la lii métit la lii jaamu yàlla la lii métit la moo tax yaa ngi wax góor gi ne ko jigéen ji loo ko defit dafay toog parce que lii jaamu yàlla li métit la yaa ngi koy wax jigéen ji ba pare yaa ngi koy wax góor gi tamit moo tax nag góor gi dafay continuer su fekkee nag gu nekkul góor gu xam yërmande dafay nekk lu ko neex def jigéen ji xam na jigéen ñoo xam ne ñoo dee nekk ku bon nag moom si góor gi si suñ si suñ si suñ culture waaye bëriwul de ñu nit ku ñuul ñun ñu si bëri jigéen ñi nga xam ne ñoo dee nekk ku bon si góor gi xam na waaye bariwut lu si bëri góor gi moo ñu dee nekk di ñu you di ñu sàggane di topp yeneen jigéen yi you know and stuff like this waaye xam na yoo xam ne jigéen yi ñoo dee nekk bon nag yooyu noonu dinaa def soon another video jigéen ay no man moom xam naa li nga ne Amie Jobe yow moom góor yi rek dinaa def another video jigéen suun boo xam ne dinaa wax jigéen yi jigéen yi sant njaay yi tamit ñu jéem a wecc ci seen jikko yi sant njaay bo soo gisee ñun suñ góor yi yu si bëri like I said ñu ñu def yenn yi is because ñun ñu dee gisee sëy bi naan sëy sëy muñ la sëy lifin la sëy jàmm yàlla la ku ne xam na ne sëy muñ la ku ne xam na ne sëy jaamu yàlla la waaye su fekkee yaay concentré si jigéen ji di ko ko wax te waxoo ko góor gi noonu wala góor gi xamul yërmande daf koy gisee ne ji ah lii pour pour wàllu jigéen bi la jigéen moo war muñ ay non xam naa ne yéen da ngeen di wax ne oh soo muñee sa bopp nga ko defal ak sa doom yi defaloo ko góor gi luy problème bi si loolu nag mooy gis nga nit kuy muñ du mën a def dara lu baax lii mooy problème bi parce que muñ mét nu méttee ah muñ mooy koo xam ne dañ lay njam ngay muñ wala ñuy njam di la njamtuñ ngay muñ yaa ngi may dégg wala ngay def dara lu métti di muñ léegi ku kuy def lu métti at the same time nu muy mën a defee lu baax lu neex at the same time naka sa xol bi xol rek la xol boo xam ne mu ngi si métti di jooy guddi di jooy bëccëg noo expecté xol bu ba noona di nekk yi noo xol bu xol bu xol bu mën a joxe mbugéel di kaf di ree di bu di su ma nii su ma nijaay naa yi no di la di la defal yu neex yi la war a defal yëpp si xol bu sedd du ko mën a def su koy def sax du jógee si xol bi du baax du ko def bu baax te lu si bëri fa lay tontu wax la lum la war a de wax parce que xolom baa ngi fees xol du bë xol ñu di ko bës dégg leen wax leen la xol du xoom ñu di ko bës loo bës bës bës bës xol ba fay ku lànk xol fa yi muy jël fa xam yenn palaas yi muy toll kenn mënu si dara soo ñun soo gisee ñu dee ragal sëy léegi soo gisee ma boole si li may wax nii yëpp parce que ñun ñu dee ragal sëy léegi lu tax ñu ko dee ragal mooy ne euh, nu góor yi di gisee sëy moo tax ñuy ragal sëy góor yi dañ dee gisee sëy bi ne jigéen ji dafa war a muñ ndax mu dem xarjana o dëdëdë mais ni moom bëggul xarjana bi ba pare jigéen ji du mun a muñ mu dem xarjana su fekkee yaa koy e sonal never fu jaar rek mu tontu mu mu xëyu si la si fitna bi nga koy def ñaar yëpp ngeen ne si fitna nu muy demee xarjana fitna bu la ko nit di teg ngay nga koy muñ waaye su yàggee rek nga xëyu ko su yàggee rek nga xëyu ko ngay sonn noonu lañu yàlla bindee fu mu jaar nga xëyu so dangay gis ne fu mu jaar rek nga xam ni koo xam ne daf lay understand you know and su ngeen bëggee jënd këpp yi maa koy jaay moo tax ma di ko sol si vidéo yi su bëri wat caméra bi is going crazy on me come on I don't want it so bright dafa leer trop so yee fu jaar rek ñu xam ne muñ bi ak sëy bi neex na te yomb na te nit mun na koo def ñun jigéen ñi nekkul ne day munta muñ de ñun ak a ñoo mën a muñ ni yàlla bindee waaye fu mu jaaree yéen tam ngeen may ñu chance like I said so waaye ñun lu tax ñu ñu war a mun a sëy mooy nit ki soo sëyeeg moom soo sëyeeg partner bu baax xam nga best friend xam nga xarit best friend mooy koo xam ne sa xarit dëgg la. soo seeyee partenaire bu baax tamit xam nga daf sécurité xam nga xam nga soo tëddee sa xel dal nga xam ne xam na nit koo xam ne tey tey su ma sonnoon su ma ko xooxee mu jóg dimbali ma xam na nit koo xam ne tey tey tey tey tey su ma xamee jaxle su ma toogee wax ak moom mu advice ma ñu dimbalante xam naa nit koo xam ne tey tey tey tey lu ma jaxle jaxle wala lu ma stress stress su ma toogee moom ah su ma xel dana dal su ma jaxle dana génn mooy best friend na best friend mooy sa xarit benn bakkan waaw sooy boo nga sëy koo xam ne nekk sa xarit benn bakkan su fekkee yaa ngi sëy te kooku noonu du sa xarit trayal ngeen nekk xarit parce que soo sooy sëy te nit du sa xarit moom xamoon nooy def lu also tax ñu war a sëy mooy su fekkee ne par exemple xamoo xaalis yaa ngi struggle yëfi xaalis yaa ngi sonn waxuma ne da ngay sëy pour nit ki jox la xaalis de waaye yow ak nit ki su fekkee nekk ngeen xarit ngeen déggoo ngeen waxtaan ngeen lijjanti da ngeen mën a lijjanti ngeen liggéey ngeen work together ba ba seen xaalis bi seen xaalis situation bi tane if you know what I mean waxuma nag nga seeni koo xam ne xamu leen ba pare lu ngeen xam rek jëndee ko yére jënde ko ba ngaa yàq ko déedéet ngeen plan laa wax bind plan xalaat nu ngeen di def ba ba xala xam tuuti su dee da ngeen bëgg a xam xalaat nu ngeen di def ba commencé dara wala commencé da def dara parce que léegi yéen ñaar yéenay lijjanti nu ngeen di xamee instead yow kenn léegi yéen ñaar yéen a koy lijjanti soo yomb pour ngeen mun koo def su ngeen ngeen am positive mind ngeen julli ñaan or stuff like this ok leneen lu war tamit nga sëy mooy doo nekk di xalaat bàkkaari njaaloo doo nekk di xalaat ngay def ak nit dara di xalaat naan su ma deexee dem safara de man tax may def lii oh my god pare doo si nekk di xalaat sax soo xamee jëkkër bu baax boo xam ne nii best friend na la ku gore ku dëggu wala ji jabar ju baax ju gore ju dëggu doo tëdd moom di xalaat naan mën naa see jëlee feebar wala dara parce que yaa ngi xam ne kooku mu ngi gore si yow moo tax ma dee wax saa yu ne pour yëfi góor yi dee topp jigéen wala yeneen jigéen ñi dee topp góor bot suñ culture bi xam na jigéen ñi dee séy ba pare di njaaloo waaye bëriwul ji góor yi la ëppee les jos bi réel waaye du góor yëpp tamit nag sorry I don't even know um, <laughs> suma soj bi ma am soj bi dee ñetti semaine mat na ko soj bi dem na de waaye kur bi ne fii moo des ba tey soo em da ngay gis ne soo xamee na boo xam ne nii yéen a ngi nekk best friend te moom wóor na ne kii nekkul di njaalo wala nekkul def dara parce que xëy na mu ngi liggéey rek wàcc yi ba pare fu mu toll mu ngi wax ak yow stuff like xoolu nga ko daal. Hmm? bonut la dara lu tax sax ba bul ko xoolu xadi da gis ne soo tëddee moom sa xol bi dafay sedd dal relax nga free def lu la neex yàlla bindal la si tiyaabo nga free ah. ka neex loolu lu jara sëy la loolu jar war naa tax ñu sëy instead ngay dugalanteeg nit di xalaat ne yàlla mun na ma see bindal bàkkaar ba pare di xalaat ne feebar mun na ma see dal ba pare di xalaat ne yàlla ma si bindal bàkkaar boole si imagine di tëdd ak nit xalaat ne feebar mun na la see dal su fekkee ne borom you know mu ngi xamee feebar yàlla traité ko also ngay xalaat ne mun nga see am bàkkaar ñaar yooyu yëpp nga xam ko just because yaa ngi tëdd ak nit rek loolu jaru ko aadi lekk nga sa lekk. alright danga koy bës soo noonu la lu ma doon wax mooy soo xamee koo xam ne nii ku gore la loo def ak moom doo jaxle doo xalaat ne yàlla mun na ma see lakk wala yàlla nangam ngay xalaat ne kay yàlla mooy bindal tiyaabo su fekkee ne juboo ngeen te ngeen buggantee te mu nekk ku baax si yow yow nga nekk ku baax si moom dafay gën a tax ngeen gën koo def sax te loolu dafay gën a tax seen diggante gën a neex te loolu dafay tax yàlla gën laa bindal tiyaabo yu bëri soo tamit lu tax lu jara sëy la nga tamit loolu soo see nga try nekk jaba jëkkër bu baax sa jabar jabar bi tam try nekk jëkkër bu baax si si si yow sorry jabar bu baax si yow dangay gis ne loolu dafay tax ngeen dem arjana there you go ku si bugg a dem arjana bon loolu jar na sëy leneen lu jar a tax mu jar a sëy tam lu tax ñu war a sëy tam mooy suñ doom yi ñu jàngal leen sëy ñu ñu won leen ne nit dangay sëy parce que gune yi ñu si bëri gëmatuñ sëy gune léegi da ngay gis ne balaa ñuy mag sax dañuy wax naan su ma magee du ma sëy de saka gune bitim réew su ma magee bëgguma jëkkër de su ma magee bëgguma jabar de bi ñu ngi gis ne sëy léegi coono la parce que ñu ngi gis ne xëy na seen yaay ñu ngi sëy seen baay nekkutoon ku baax wala seen yaay xëy na mu ngi ah, wala seen rakk yaay wala seen rakki baay wala seen nangam wala jos nit ñi si àdduna si ñu ngi sëy sëy yi di tas nit ñi di sonn so dañuy dañuy give soo yow soo sëyee dina tas fekk yaa ngi am doom di leen jàngal ne sëy sëy bu sëy boo sëyee ba mu tas sax wala yàlla traité ko jëkkër ji gaañu wala nanga wala ji gaañu nga war a beneen su doxul sax nga war a di traay ba yàlla indil la bu dox bi soo loolu di ko jox xub boobu di nga ko jox gunee dafay tax gune suñ magee dina dinañ xam caar pour dem sëy also nit ñi nga xam ne juróo leen sax dinañ la gis dinañ loolu dina tax ñu bugg a sëy suñ la gisee yaa ngi sëy sëy bu neex yaa ngi nekk fa noonu di di happy sa jëkkër nekk ku baax si yow nga nekk ku baax si moom loolu ñoom ñoom dañ ko dee xam dañ ko dee gis loolu dina tax ñoom tam ñu bugg a xam façon sëy bu mel noonu soo moo tax dafa baax pour sooy sëy nga nekk di def sëy bu mu set def ko sa mu jógee sa xol bi nga nga def ko ngir ngir nekkul jos ngir yàlla nga dem àjjana waaye soo ngir nga influence ñeneen ñi ñi la wër di la xool loolu tam lu tax la lu jara tax la bañ war a sëy also lu jara tax bañ war a sëy mooy damay try a jeexal vidéo bi léegi mooy nga nga xam mbuggeel nga expérience réel mbuggeel ñun ñu si bëri dañuy dund ba dee duñ mës a riel réel mbuggeel parce que ngay bugganteeg ni koo xam ne xëy na nekkutoon réel mbuggeel xëy na mbugeeli gune la boo xam ne xëy na da nga bëgg nit kii parce que ni mu lay fóonee wala wala nangam wala wala ne raw yaramam nu mu mel wala su ngeen neexee si lal bi nu muy mel wala nangam su ko defee nga foog ne loolu mooy réel mbugeel fekk loolu du riyal mbugeel réel mbugeel nu ma ko gisee man dëgg la mën ngaa bëgg nit ki ngir yaramam yi nu mel wala nu mu xamee wala waso eva waaye réel mbugeel ah mooy ni koo xam ne dangeen ngeen di understandante ba pare dangeen di signer seen bopp pekk ak pour ngeen gore ngeen buggante ngeen respectante pare ngeen gore gore kenn bu mu moromam kenn bu naqatal moromam yenn naqat yu bon yi kenn bu mu dem di tëdd nit di ñëwaat di jàmbu moroomam ak a disrespect moroomam gore loolu mooy mbuggee dëgg noonu laa ko dee gisee ku nekk xam na ne ngay war a bugg nit ku nu meloo everbot des bu moo beyond that way beyond that lu ëpp loolu mooy moo war a tax mooy mooy waral mbuggeel dëgg soo ñuy si bëri nag du ñuy xam noonu soo dañuy sëy ak nit ngir nangam ak ki nangam wala nit moo wax ñu takk ko wala nit ki dama ko bëgg rek nangam nangam saka sëy xale yi ñu xam ñu ñu si bëri time xale soo léegi su ngeen dee ba mag nag nga gis ne ah kii dee meloon ni nit ku ma bëgg a sëyal meloon ni nit ku ma war a xam meloon ni xam xamul yeneen jikko yi ma soxla mu ngi may def lii mu ngi may fekkee tout léegi xas ngeen ba sëy def si borom léegi mu wecceeku yow tam su fekkee da war a wecceeku nga wecceeku ngeen continuer wala su xam na yenn yàqu yi mu yàqoo moom fu mu jaar rek ngeen bàyyi waaye nag lu warut a tax nga give up nga ne rek ah man moom mbugeel du pour man mbugeel moom du ma ko xam xaaral ma bàyyi déedéet mbugeel ni ma ko gisee dafa mel ni loterie tey mun ngaa dem nga jënd nga gañe ëllëg mun ngaa dem nga jënd keneen mun naa nekk di jënd fukki at du gañe yow mun ngaa jënd tey benn yoon rek nga gañe soo bëggee tam noonu la waaye ñu si bëri na da ngay dégg nga ñuy wax ne soo bëggee dara ngay xeex ngay fight nit ki nit ki soo bëggee dara ngay xeex nga xam ko ngay ñafe waaye su fekkee mbëggee la duñ ko dee waxee noonu duñ ko dee gisee noonu soo traayee doxul nga traayee doxul rek danga dee give up nga ne ah man kay man xam naa ni li ma yàlla bindee duma musa xam jàmm si mbuggeel nga ida toog si mbugéel bu naqadi boobu di jooy bañ suuli la mbala nga give up gedd mbugéel yépp ñeen ñi suñ give dañuy nekk di foog ñeen ñi ne dañuy give up duñ fo duñ def dara tëj seen buntu yi rek give up waaye mbugéel koo def loolu mbugéel loo xam ne la nga koy hut soo ko xamut ngay hut te bul give up di try ba nga xam ko waxuma nga di ko hut da wrong way di dem di sànni sa bopp si nit ñi ka go crazy waaye trial nga lijjanti di wax ak nit ñi su ñu waxee ak yow nga xëyu leen try di nga taseeg nit ku la bugg koo bugg yoo tam bul give up parce que mbuggee loo xam ne la soo xamee ku la bugg dëgg mu bugg la dëgg ngeen doggu xante si si si wana nooda ba pare nit ki gore nga gore ah, ngeen nekkal fa i cooda lu neex la te lu seer la benn xaalis mënu koo jënd moo gët kët moo ëpp moto moo ëpp lu ne waaye ñun fa ñuy xeex de pour ñu kët xeex pour ñu am moto xeex pour ñu am xalal àdduna waaye du xeex pour ñu am mbugéel te mbugéel lu jar a xeex la soo ko xamee yit fa la xeex ba war a tàmm gën gën a gën a gën a gën gën gën a a dëggoo soo xamee mbugéel bi da war a xeex pour nga téye ko xeex bi mooy nga gore respect borom won ko mbugéel borom it gore respect la woon na mbugéel ngeen mën a continuer mbugéel gi mu continuer parce que mbugéel dëgg goo xam ne soo feebaree borom taxaw soo jaxlee boroom taxaw foo nekk borom taxaw dimbali la ngeen taxaw foo wan nooda loolu moo ëpp lu ne xam na ñenn ñoo xam ne seen buggeel gi ñu xam ah, li ñuy dimbalante i cooda seen ñi bokkal ndey baay sax duñ ko dimbalante i cooda duñ leen ko dimbale te loolu jar na pour nga xeex pour nga xam ko bul give up ñun nag dañuy foog ne mbuggee jaru xeex waaye lu jara a xeex la ki may létt ñëw na xam naa ne mooy fëgg soo maa ngi bàyyi vidéo bi léegi dinañ gisante moo leen gisati naa leen gisati so hopefully understand ngeen vidéo bi ak Fatou yow mu wax ne wax ko si xolof hopefully on enjoy nga bii nii but dinaa def more of this type of video so di nga gis li may wax in the future inshallah get am good dee bye